mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM dimanche bu jot 16h jàpp 17h fii ci rajo mi ci émission gox bi tey ñu war ci dalal ki nga xam ne nag moom moo di Ibrahima jiite mu nekk bokk moomeel bu Judugu n'est-ce pas monsieur le maire voilà moom tey euh, Judugu nag xam naa dinañ ko ko présenter laata ñuy euh, démarrer rek euh, émission bi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di kontaan tey ci li ñu lay dalal ci émission gox bi. maa ngi lay fay monsieur Dramé. Euh, man la Ibrahima Djité maire de la commune de Dioudoubou Dioudoubou ci région de Sédhiou la bokk département de Goudomp euh, nekk euh, commune depuis 2014 mais auparavant nekkoon communauté rurale ancienne communauté rurale depuis 2009 donc euh, ñun ñu ngi ci entre la RN6 euh, à côté de Sédhiou presque trois kilomètres d'autre part mais cinq kilomètres d'autre part d'une part donc euh, Dioudoubou c'est une commune rural bi ma yàlla teg foofu depuis tamit dinañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatoo ci biir émission bi mais monsieur ñëpp xam nañ ni tey jàngoro bi nga xam ni moom moo ëlëm ñëpp muy coronavirus bi euh, tey mën nga ñu defal point fi nga xam ne nag foofu nga dëkk euh, nga nekk maire bu Dioudoubou defal ñu point bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci jàngoro bi. Oh, merci beaucoup dafa naa bon je jàngoro ji ñu ngi koy ñu ngi koy euh, remarqué ci Sénégal fii nii. vers le le deux presque le deux mars bo autorité le plus hautes autorité jël décision ne vraiment déclaré officiellement jàngoro ji depuis boobu euh, di leen li dal ci président de la république euh, ba ci ministre yi dañuy jël ay ndogal euh, ñun en tant que démembrement de l'état nekk collectivité territoriale continuité duñ dogal boobu ñun tamit dañ ko dëgëral suñu commune lan laa bëgg wax noonu depuis que ñuy déclaré affaire bi ñun on a commencé commencé nañ di jël les mesures barrières mesures barrières yi autorités sanitaires édictées euh, bokk na balaa laata lool sax commencé sensibilisation sensibilisation mooy euh, euh, wo acteurs yi à la base à la tête l'acteur sanitaire bi nekk poste de santé de passage même maa koy nu di ko félicité Eh, parce que dafa daf ñu accompagner. ci wàllu d'abord C CDD. organiser leen CDD. balaa affaire bi di egg suñu région. si si CDD boobu euh, infirmier chef de poste de Banguère moo ñëwoon euh, décrit ñu décrit ñu maladie bi ni mu tëree. ah after loolu ba après loolu euh, dafa jël euh, matuwaay di sensibiliser les relais communautaires. parce que relais communautaires ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay relais communautaires. tout à fait ba bu ma waxee acteur mooy relais communautaires yi. mooy des doom yi. mooy bàjjan gox yi. mooy commune am na ay volontaires tamit. mooy chef de village yi. bref enseignants yi. ñëpp bokk nañ si donc après dafa def benn mu def ñu benn cours magistral ci mode transmission maladie bi mhm. euh, mu joxe ñu information bu yaatu mhm. ci ci ci maladie bi mhm. ci lañ jël ñun tamit ñu relayer information bi au niveau de la population di leen expliquer maladie bi naka lay transmettre nuñ ci mujj tamit jot nañ ñu expliquer ñun tamit jël expliquer population yi pour que au moins balaa affaire bi di ñëw maladi bi di ñëw. ñu ñu jël les vraiment sanitaire mais dugg na Sédhiou def fa ay ravage bu doy waar wala ah. mais balaa muy dugg si Sédhiou sax ñun euh, bi ñu déggee ni maladie bi muy Ziguinchor avant loolu sax laata loolu ñun jël nañ suñu matuwaay. mooy dal de point sa def foofu ay sanitaire sanitaires ça veut dire lave-main euh, thermoflage ak. Euh, détergent yi en général mhm. mais lu gën a yéeme par le cas de Sédhiou li nga wax ni mhm. parce que bon c'est un cas qui a été importé mhm. bu mu ñëwee vraiment waaw franchement ñëpp ñëpp ñëpp désorienté xamuñu woon ñëpp xam xamul sax lu ñuy def mais ma ma ñun suñu commune Euh, ba léegi am ñu cas et le seul cas bu ñu bu ñu bu ñu déggoon bu def euh, vraiment une transmission de masse mooy Mankonomba donc euh, loolu dafa gën a dëgëral suñu taxawaay ci mbir mi parce que dañu xam ne Mankonomba soriwul suñu commune. Mhm. et puis euh, Sédhiou moo nekkoon suñu point de chute ñun ñëpp foofu lañ daje. Mhm. parce que foofu la service yi nekk. Mhm. Euh, autorité sanitaires yi jël nañ matuwaay jël nañ vraiment seen responsabilité. Euh, bon de gouverneur sax tëjoon na la traversée. par que ñun pour nga dem Sédhiou foog nga traversé. mais quand même il faut féliciter les autorités sanitaires. vraiment bi ñu déclaré affaire bi ñoom dañuy jël tooguñu ils ont pris vraiment toute la responsabilité mm-hmm. et dem ci barab ba mooy mankono mm-hmm. xool ñi ci ñi ñi ñi ñi war a teste mm-hmm. testé na ne ba léegi ñu wee liggéey bi ñuy ci liggéey bi vraiment c'est c'est c'est le point le plus positif mm-hmm. euh, tout les acteurs dañu manko mm-hmm. dem ci ci ci ci ci ci mm-hmm. ci wàllu fagaru quoi dañ koy wax mais monsieur le maire ginnaaw ba jàngoro bi duggee mankono stigmatisation bi gën a bëri ci biir gox bi mais loolu yéen naka ngeen ko jàngatee yéen ñi nga xam ni dëkk ngeen ak mankono te soriwul dara stigmatisation boobu na ngeen ko dundee bon xam stigmatisation bi tamit euh, du ñàkk parce que li ko waral mooy que euh, ah, ñun population yi ñooñ xamuñu woon maladie bi ñeneen ñi sax dem nañ ba ne lii amul gëmuñu ko gëmuñu ko woon mais bi affaire bi ñëwee day àndi problème ñëpp duñu du ñu nekk quoi moo tax finalement village riverain yi ñoom pour ñoom vraiment waa ji def ñu ngi doon cité Janna malaria. voilà village riverain dañu pour ñoom lii daf leen andi tort quoi. ki ko andi parce que c'est un cas importé. mais quand il faut saluer ni ñu war a saluer mooy que autorités locales yi. ak euh, les chefs coutumiers autorités religieuses yi. stigmatisation bu mu commencé dañu jogoon xar sañ tànk tubéy dem ci population yi. di leen sensibiliser di leen ne lii ndogal la li war a am. ñëpp dañ au lieu ñu stigmatiser dañu war a taxaw euh, pour que feebar bi bañ a law ci gox donc loolu je pense bien que c'est le point le plus déterminant à saluer euh, donte ñàkkul mais quelques personnes yi jël seen kii bëgg a stigmatiser wala ne duñ fa dem mais quand même il faut saluer le travail remarquable de la sécurité aussi par sécurité bi affaire bi mu amee dafa mettre le village en quarantaine Euh, jël les gens les personnes contactées mhm. pour ñu dem tester leen mhm. et puis un travail remarquable parce que parmi tous ces per toutes ces personnes là yi ñu jël yóbboon hôpital mhm. ñu bëri euh, wér nañ daanaka et puis loolu vraiment il faut ñu saluer ko mais les autorités les les acteurs même sanitaires son en train de sensibiliser pour que nit ñi bañ a def stigmatisation parce que baaxul En, en dehors de ça euh, la sortie du président de la République nous a rassuré parce que président lu mu wax dafa leer. Mhm. et je sais que li mu wax daf ko jël ci ci conseil euh, médecin. Mhm. vivre avec le virus. Mhm. loolu comme d'autres maladies. tax na kenn warul stigmatiser kenn. parce que dañu war a manko on fait face à la euh, au virus. ok mbokk yi di leen fàttali rek tey ñu ngi dalal ki nga xam ni moom moo di Ibrahima Djité nekk bokk moomeel bu gu tey moom la ñu dalal fii ci émission gox bi euh, monsieur le maire ginnaaw ba jàngoro bi ñëwee nag yéen euh, ca diwaanu Sédhiou ba nga nekk commune bi nga nekk génne ngeen koppar teg ko ci kaw taabal bi ngir ngir mun a xeex jàngoro bi ndax tey koppar gi ñaata la toll ngir xeex lu mel. Ah, ñun de ba affaire bi ñëwee d'abord. Euh, dafa fekkoon ñun euh, en amont euh, suñu budget bi ama le budget c'est une prévision dañu prévoir on ne d'abord li ñuy jagleel à santé secteur sanitaire bi ak secteur dimbale population parce que ñun commune rural et puis ñun on est très souvent ci wàllu feu de brousse daay dafay sonal population yi et puis ñun côté boobu dañ ci à chaque fois dafa am euh, somme bu ñuy prévoir donte bariwul mhm. euh, prévoir nañ six millions mhm. prévoir nañ ci leen côté cinq trois millions donc bi affaire bi déclaré ñun on a pris de les devants d'une façon vraiment urgente nunu mhm. nous di dit d'abord il faut ñu am euh, les détergents bi permettre les populations ñu nekk ñu set d'abord mais au-delà de ça ba président de la République ak euh, bi mu waxee ne dafay dimbale population parce que seen mouvement bi mënul mënul nekk comme auparavant euh, dafa leen di dimbale mais munul dimbale ñëpp mhm. bi mu waxee loolu ñun la commune de Dioudoubou dañuy jëloon devant bi ñu mhm. euh, dégager une somme de presque huit millions mhm. ñu ne dañ koy jënd ceeb loolu dinañ sax nu mu gën a yaatoo mais ginnaaw ba ngeen génnee koppar gi euh, ay millions ngir xeex ci li nga xam ne moom moo jëm ci jàngoro bi ni mel ndax tey gis ngeen ni li ni mel euh, am na ay résultats léegi. bien sûr parce que premier résultat bi mooy que prise de conscience. ama feebar am ama feebar bi pour nga xeex ko il faut que nit ñi accepter nii feebar am na. waxoon naa la ci ci début bi ci njëlbeen bi mm-hmm. population yi pour ñoom lii ay léeb la. amul ko amul. mais mais prise de conscience bi ah de réunion en réunion. Mhm. population accepté nañ ko feebar bi am na. Mhm. ka kaa Mankonomba dafa gën a dëgëral prise de conscience boobu. et le fait que aussi autorité territoriale autorité administrative yi tëj. Mhm. yeneen mouvement yi. nit ñi comprendre na lii du ay fo. bu dee foo la duñ ko def. Mm-hmm. moo tax donc voilà restez chez mm-hmm. loolu nekk na loo xamante ne. Mm-hmm. lii gën a dëgëral taxawaay population. parce que tout le monde s'est dit que bu ñu bu ñu bu ñu taxawul. restez chez vous dina gën a durer. et puis ñun on est population bu caractérise caractère rural. caractère rural foofu faaw ñu dem liggéey. ci tool bi. caractère rural faaw ñu dem euh, peut-être ak zone agglomération ñu dem jaay fa. caractères yooyu faut que ñu dégg couler écouler leurs produits mm-hmm. mais yooyu bu dee nit ñi toog nañ ci confinement bi même si c'est partiel mouvement bi c'est partiel mm-hmm. euh, dafay jouer sur sur la la la vie des gens mm-hmm. loolu tax na population bi en premier lieu on les a amenés à prendre la conscience feebar bi am na lan lañu war a def dañu war a jël suñu matuwaay et puis loolu c'est à saluer aussi Euh, après loolu ñu quand on a installé bi ñuy installé les sanitaires commence nañ tamit euh, di ko utiliser parce que boo accepté pop ni feebar am na mhm. mën na dal ku ne donc fagaru danga ko war a teel a def moo tax ñun en tant que mairie mhm. dañu cibler les points d'entrée ak les points de regroupement fu nit ñi di dajal def foofu sanitaire sanitaire boobu ñu am ay volontaires ñi koy suivre. ñaata volontaires ngeen on a quatorze volontaires parce que nous avons douze villages. Mhm. et deux points euh, centraux. Mhm. où nit ñi di dugg di génn. donc avec les quatorze volontaires la ñoom ñuy surveiller mhm. les points d'entrée et tàggat ngeen leen balaa ngeen leen bien sur c'est c'est ce que je dis euh, euh, c'est ça été fait avec l'infirmier chef de poste moo leen di tàggatel pour ñoo xam li ñuy def pour détecter waa les cas primaires. waaw gouvernement bi ci loolu mu génnee ab koppar gu am solo mille milliards euh, teg ko pour jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi loolu tax daf ñuy may ñu naan restez chez vous bi euh, jënd ceeb ay duulin li ni mel ndax yegg si na yéen seen commune euh, ba ngeen ci mun a suturloo. waaw merci mais je pense bien qu'il faut remercier le président de la République. il faut le remercier parce que euh, man je le dis. il a c'est un visionnaire parce que lii euh, bu mu commencé il a su créer au moins autour de lui n'est-ce pas un élan de solidarité boobu vraiment c'est un vrai leadership euh, loolu tax na euh, les secteurs confondus l'opposition comme le pouvoir secteur privé les particuliers ku nekk joxe na au moins pour atteindre au moins cette somme-là maintenant la somme elle est là mais population gouvernement bi tamit muy def jéego pour que au moins population yi ñu teel a jot pour que recherche bu soit effective waaw ñun jot nañ euh, presque la région de Sédhiou toutes les collectivités jamono bi ma lay wax ni on a mis la disposition au niveau des communes disposition dans les communes euh, ceeb am na fa diwlin am na fa suukar si am na fa Euh, vermicelles yi am na donc li war a bokk ci kit bi am na maintenant ñuy xaarandi pour stabiliser les listes ñu ñu distribuer. ok liste bi ndax am taxawaay bi euh, yomb na commission yi ngeen ko monté ndax euh, région de Sédhiou dañ naan ñu bari ndóol gi dafa bari léegi yéen nan ngeen établir li ni mel. waaw ben liste bi liste bi d'abord il faut dire que ñaar liste la woon ñaari penen waaw voilà RNO bi ak bourse familiale mm-hmm. donc am na loo benn am beneen liste bi daanaka c'est les services statistiques de l'État mm-hmm. moo ñu ko yondil mm-hmm. donc loolu dañ ko vérifier seulement rek fu am fu am kii dañ ko vérifier seulement ñi am doublon ñu dindi ko on redistribue dans la commune donc euh, partie bu concerné commune pour mu choisir les familles les plus vulnérables ñun tamit teg nañu commission administrativement commission communale de ciblage commission villageoise de ciblage commission communale tourne autour du maire commission euh, villageoise tourne autour du du chef de village mm-hmm. donc loolu la mm-hmm. Euh, bu ñu remonté dossier yi yëpp. ça n'a pas été facile parce que. comme comme comme li waaw euh, famille yu bari dañ ne du ñu am ndax ñoo xam ne ci bourse familiale bi famille boo gis di am juróomi nit yi nga xam ne dinañ nekk ci liste bi monsieur le maire loolu yombul de. waaw waaw c'est yombul parce que tout le problème c'est bourse familiale bi. da ngay gis benn famille buy am euh, au moins deux personnes ñu nekk. kon gis ngeen problème boobu yëpp. bon ben dañuy gis ni dans le même parce que lié aussi au cas de décès parfois. nga bokk ak nit ci benn benn concession parce que il faut le reconnaître village yi dafay ay concession di nga dem benn famille nga gis euh, cinq à six ménages ñu nekk benn bërëb. par exemple yow sa petit frère wala sa grand frère bu dé bu décédé. Mhm. yow yaay jël jabaram yu mel noonu am na voilà loolu yu mel noonu am na fa euh, tax na yeneen population yoo xamante ni sont dans l'extrême pauvreté pour ñoom leneen lañ ko gisee moo tax c'est un peu difficile mhm. mais quand même li gën a salutaire ci li ci mbir mi mhm. en tout cas sama commune mhm. ñun dañuy teel a jël suñu matuwaay jël suñu matuwaay c'est quoi dañu def un recensement global benn wóolem kenn. tout on a pris tout le monde un recensement ba liste bi liste état bi ñëw ñu xool ñi ci bokkul la mairie a pris en charge en intégralité. ñun actuellement ñuy ci 17 tonnes de riz bi disponible. mairie waaw ba bien sûr moo ko génne au niveau de son budget. pour pour pour au moins. pour que toute la population ait le riz. et au delà de ça jot nañ euh, diwlin tamit pour que ñoom ñëpp am diwlin. jënd nañ saabu tamit pour que ñoom ñi ñi des ñëpp am saabu euh, jënd nañ tamit euh, soble par nous somme di bon peut-être vermicelle euh, am na ñoo xamante ne dëkk ba xamuñu ko wala duñ ko togg mhm. mais au moins ñu jox leen li daara yi ñu gën a yitteew moo tax ñun on a orienté soble ak saabu ak euh, yu mel noonu. waaw mbokk yi yéen a ngi seen émission gox bi si rajo Rewmi FM tey nag ñu siy dalal ki nga xam ni moom moo di Ibrahima Djité nekk bokk moomeel bu juddu gu alors euh, ba ngeen a defee li ni mel léegi euh, gouvernement bu Sénégal état bi moom créer na ay moyens yi nga xam ni léegi yéen pour mairie ngeen mën a am accès seen xaalis dafay yomb ndax mun nga ñu expliquer procédure boobu nekk na lu lu leen arrangé. Oui, il faut. C'est pour cela que toujours dit au moins, euh, il y a un travail extraordinaire bu président de la République est en train de faire. Euh, c'est pour cela su may déggee nit ñi di ko critiquer ci yenn fànn yi man euh, daf may xaw a jaaxal <laughs> euh, matuwaay bu gouvernement jël pour mu yombalal ñu n'est-ce pas li ñuy waxate procédure administrative de décaissement d'engagement d'ordonnancement des fonds mm. collectivités yëpp saluer parce que dafay permettre au moins ñu agir en en un temps record mais aussi li ñu war a saluer mooy que la diligence yu trésor yi nekk di def parce que c'est important une chose est de faciliter yombal ñu suñu procédure mais une autre chose est d'avoir la possibilité de liquide liquide ama loolu tamit c'est très important moo tax ñun on nous tout le monde se retrouve ñëpp a ci kontaan ñëpp a ci kontaan maintenant. mais est xaalis bi am na ñoo xam dañ naan xaalis bi dañ koy dugal utiliser ko à d'autres fins wàllum politique def ko seen lu leen neex ndax yow ànd nga ci loolu. non non man ànduma ci lool man ànduma ci loolu. li tax nit ñi di am procédure boobu allègement boobu c'est pour que Euh, ñu jàppale suñu gox yi suñu population parce que ce qu'il faut reconnaître feebar bi muy fii demagul il faut que nit ñi tamit dans cette procédure là ñu def ko par palier palier mooy lan li ñu xam mooy li xew tey peut-être que ëllëg le taux de contamination mën na gën a bari taux de contamination bu gën a bari gouvernement bi lu mu jëlul décision bu mu jëlul foofu lay mujj décision bu mu jël moom lay jël ça veut quoi bu dee affaire bi muy gën a yokk le président sera obligé mu jël confinement total bu boobaa confinement bi kenn souhaité ko kon souhaité bu boobaa si ñun lay si ñun lay ñun lay dal parce que ñun en tant que collectivité local mhm. dañ ci war a taxaw c'est pour cela gouvernement à travers fonds yu ñu transféré mhm. à travers tamit euh, possibilité allègement yu ñu defal mhm. yooyu yëpp c'était pour que ñun tamit ñu am benn stratégie de gestion locale boobu dama koy saluer maintenant lu ma d'accordul mooy que benn maire warul jël xaalis boobu di ko dugal feneen non non non parce que dafay nekk détournement d'objectif et ñun loolu loolu taxu ko jog li ko tax jog jóg mooy que mm-hmm. population bi mm-hmm. ñu sóoraale ñu def benn prévision mm-hmm. ñaanu ko yàlla mais loolu bu bu amee naka lañ mën a saafare seen njànkaru ci njànkaru bi si an ci wàllu lekk waaw vraiment voilà loolu waaw loolu daal ñun de loolu lañu ñun seen commune transparence ngeen koy doxalee mais bien sûr loolu lañ fa yéene def ok loolu daf ñuy may ñu waxtaanee ci li nga xam ne moo di njàngaleeg njàngale bi président nee na le dafa bëgg yóbbu élèves yi ñu jàngi euh, ci li nga xam ne ñoom ñooy def bac euh, BFM wala sax entrée en sixième ndax yow sa commune jël ngeen matuwaay yëpp ngir le deux xale yëpp dem jàngi sans problème. waaw mais balaa loolu sax man je voudrais dire que euh, dans toujours dans la logique vraiment de la gestion stratégique de la pandémie. Mm-hmm. Euh, je crois que euh, les étapes sont vraiment respectées. Parce que moi, au-delà de, du fait que je suis maire, mm -hmm. man suis enseignant, jàngalekat la, je suis prof, mm-hmm. mais aussi dama nekk dans le cadre, je suis manager mm-hmm. aussi, euh, mais aussi j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la stratégie organisationnelle. Mm-hmm. man li ma gis ni et puis j'ai beaucoup aussi travaillé dans le cadre de de la gestion des crises. waaw moo taxit man bi ma jàngatee décision yi président de la république jël ba léegi dama gis ni benn cohérence am na cohérence bi mooy lan mais bi mooy lan parce que euh, bu ñu xoolee tout au début dafa commencé yombalal mbir mi mu dem ba ci biir mu jël décision yi décision yi ba décision yi denk presque forole nañ confinement bi parce que bu ñu jëlee couvre-feu bi kese kese problème la ci population bu ko tàmmul nga jóge ci couvre-feu bi mu ñëw restriction de circulation secteurs yi vitaux yi yu mel ni transport yu mel ni dem dem dem jënd ak jaay nit ñi marché hebdomadaire yi yëpp tëj man wax naa waxoon naa la ni euh, la majorité de la population euh, kii rurale ci ci ci ci ci ci ci économie yu ndaw yi lañuy lañuy lañuy lañuy lañuy sukkandiku loolu lool bu amee président jël ndogal ni loolu yëpp arrêté mm-hmm. à un certain moment il faut au moins nga nga laisser les gens au moins mm-hmm. jamono ji gars yi nit ñi jël conscience ni feebar bi am na mm-hmm. parce que aussi c'était ça la procédure stratégique nit ñi jël seen responsabilité nii ñoom c'est seen bopp ku nekk boo taxawee li nga war a taxawee doo nekk vecteur de transmission man je salue sa maintenant li dem ci wàllu njàngale bi man je dis que euh, un pays d'abord c'est l'éducation kenn mënul wax réew te da waxoo jàngale ku nekk euh, médecin yi faut ñu jàngale ko président de la BIC naka noonu donc en certain li may wax logique boobu bu may wax ni mm-hmm. confinement bi tax na vraiment demi confinement je peux dire mhm. et ou bien restriction de mouvement bi et arrêt le fait que ñu tëj école yi pendant un certain temps mhm. man je pense que c'est une décision très courageuse mhm. bu mu defoon maintenant mu xam ne vraiment année bi mën nañ ko sauver parce que buy wax ni vivre avec le virus ça veut dire que nit ñi bu ñu demee ba xam ni vraiment virus bi am na ñu xamee ne ñu demee ba xam ni mesure barrière yi ñu wala a jël mokkal nañ ko mais c'est possible de vivre avec le virus yeneen maladie ñu ngi fi tuberculose sida yoo des maladies contagieuses mais li wax dañ naan est-ce que euh, mesures yëpp jël nañ ko ngir le deux lépp jaar yoon. mais foofu laay waxee par exemple ba ba xam nga mesure les premières mesures d'abord mooy que prise de conscience. nit ñi dañ koy fàtt prise prise de conscience c'est les premières mesures président jël tous ces arrêtés la dafa dafa jël arrêté pour que nit ñi accepté ni feebar bi am na accepté nañ les médecins yi def seen jéego seen explication lii ak lii ngeen war a def pour pour pour pour pour ne pas contaminer loolu def nañ ko ay presque deux mois donc loolu bu amee première matuwaay bu ñu jël mooy boobu deuxième matuwaay c'est quoi président de la république jël na décret tëj école yi pour un une période pour que les acteurs aussi ñu xam ni lii du fo donc bu jëlee décision au niveau mondial déggoo fenn bu fu ñu ne année blanche am na parce que ab maladie Sénégal ne saurait être un pays à part et puis aussi la validation des diplômes est ajustée aussi au niveau mondial le Sénégal c'est c'est pas un pays qui c'est qui est bu nekk à part donc bu ñëwee mu ñëwaatee mu ne prise de conscience am na nit ñi ils ont jàngale ne suffisamment nu ñuy war a jël comme matuwaay pour ñu bañ a nekk vecteur de transmission man je salue d'abord le fait li est mu mu réouvrir école maintenant li ñuy wax euh, les modalités pratiques pour que loolu mu mën a nekk c'est pas au niveau du président de la République le président bu ñu xoolee si c'est en économie c'est au niveau macro maintenant ñi war a ñi war a yëngu pour que mbir mi mën a nekk mbir bu yomb te vraiment mu ñëpp ci retrouver wu mooy man bokk naa ci en tant qu'enseignant syndicaliste bi wax bokk na ci opposant bi wax noonu moom bokk na ci par li ñuy wax waxuñu président de la bi dañuy wax ëllëg ja ëllëg avenir Sénégal. président bi xale na yoon. mais bien sûr continuer. mais bien loolu la def et puis li ma wërte wër j'ai vu que les ministres là chacun en ce qui le concerne le ministre de l'éducation nationale. Mm-hmm. il a pris les dispositifs man Mama Talla il a pris les dispositifs qui s'imposent mm-hmm. le ministre de la santé naka noonu mm-hmm. le ministre du transport il va le faire mm-hmm. et moi j'avais dit en son temps mais heureusement que j'ai vu que orientation bi ñu jël dem na ci loolu c'est que on doit réquisitionner les bus de Sénégal de Dikk là on on fait la on ñu répertorier enseignants yi yëpp seen lieu de provenance. mel na mais bu foofu lañ jëm. forcément pour parce que foofu lañ jëm c'est plus stratégique. ñu répertorier tous les enseignants ak élèves yi seen lieu de provenance. Mhm. bu ñuy ñëwee avant même la rentrée. Mhm. ñu def leen test. parce que le Sénégal a la possibilité de faire des tests massifs. Mhm. loolu te test massif yooyu. mën nañ leen def test. balaa ñu dem ci école. maintenant responsabilité bi c'est partagé. ba ministre yi jëli matuwaayam les académies vont faire idem mais ce qui vient des collectivités territoriales ñun ñun on va jouer notre partition mais désinfecté est-ce que léegi euh, juddugu bi nga nekk comme maire tey ndax lépp yow lépp yemb na ngir la de ñu am jàng wu ñoom oui mais ñun ñun on n'est pas une grande collectivité d'abord okay. mais aussi ñun on a on est toujours dans la prévision mhm. on l'a fait Euh, tey tey ta j'étais avec le chef de brigade sanitaire bu mm-hmm. ma war a yóndi euh, l'estimation des besoins pour ñu désinfecter waxoon naa ne am nañu quatorze volontaires mm-hmm. volontaires yooyu mm-hmm. man j'ai huit j'ai onze écoles onze écoles huit waaw ci commune bi huit écoles euh, neuf écoles vont reprendre c'est douze écoles neuf écoles vont reprendre écoles yooyu volontaires yi ñoom dinañ ci def dispositif après ñu désinfecté ñu def dispositif mais aussi il faut que ki fa war a dem dinañ ko sensibiliser pour que ñu le respect de la distanciation sociale dans les classes yooyu on est dinañ jël benn réunion de coordination avec les chefs d'établissement parce que la mairie dina affecter un personnel temporaire pour la gestion des des cours jusqu'à l'examen ce personnel-là, c'est un, un, personnel qui sera renforcé par les autorités sanitaires locales bu leen di expliquer donc nañu wax les chefs d'établissement tamit ñu accepter personnel boobu comme c'est quelqu'un qui est là pour veiller n'est-ce pas superviser mais veiller aussi au bon au bon usage même n'est-ce pas des des des des installations sanitaires yooyu masque yi yëpp lépp yooyu yëpp dinañ ko def bu ñu waxee installation rek yëpp yëpp la ñu jël donc ñun dinañ mettre en disposition avant la rentrée mhm. mais aussi au-delà de ça nous allons affecter de personnel dans ces neuf écoles là yooyu personnel seen liggéey yëpp des mooy que euh, respect strict de la distanciation sociale. waaw léegi ñu wax jeexalee ci benn mbir ci jàngoro bi rek ministre de l'intérieur génnee na ab communiqué nee na dem beeg dikk bi du mën a nekk mu cité sax. région bu Kees ak Mbour ak Dakar bi nga xam ne ñëpp dañ jàpp ni mooy centre de euh, jàngoro bi yow euh, mesure yooyu noonu te benn waxoon nañ ni mën ngeen a euh, jël autorisation bind ko mën a dem seen dëkk bu ngeen bëggee julli waaye mu ñëw si ndogal bi nag ñu bari comprendre luñ ko yow monsieur le maire yow noo ko jàngatee. mais ce qu'il faut reconnaître euh, le ministre de l'intérieur. Hmm. c'est le ministre qui a les informations. feebar bi la gestion stratégique de la maladie daf koy imposer nest pas au jour le jour décision li am te wóor le ministre de l'intérieur du def dara lu dul autorité sanitaire yi ñoom ñoo ko njëkk conseil ama waxoon naa la ci njëlbeen ma président de la république dafa jëloon ay matuwaay euh, de couvre-feu nest pas buy dalee de huit heures jusqu'à hmm. mais à un certain moment dafa ñëwaat ci décision bi lu tax parce que il a fait une bonne lecture de la situation communauté bi mënoo ko noot à un certain moment ba amatul fu muy nooy dafay révolté bu loolu tax président de la république mu xam ne suñu réew mii Sénégal hmm. euh, bu dee européen ñoom capitalisme la ñu gëm fii nii au delà de manger dormir nit ñi seen spiritualité bi loolu lañu gëm loolu tax na à un certain moment de la république mu jël benn décision mu ne leen eh, ku nekk da am dafa am yàlla bu mu la jagleel comme responsabilité mu ne ñi nekk ci jàkk yi les autorités religieuses mu ne leen jël leen seen responsabilité comme li ngeen ko bëggee comme xadis yonent bi la wax foofu kullukum raay kullukum raayati donc loolu mu ne leen jël leen seen responsabilité mun ngeen les musulmans les catholiques ak yeneen yi mën nañ def seen culte dans la discipline kenn mënul ne ñi xamuñu discipline moo tax foofu man j'ai bien apprécié parce que ñun suñu gëm bi mooy que lenn bu lan dalee dañ ñu ne inna laay wa inna ilayhi rajiun donc ñun du ñu wax euh, économie màbb na euh, yaa yaa yaa dafa am ñuy créer virus ñun du ñu ko wax ñun dañu ne yàlla moo ñu ko teg donc li ñu war a def mooy dugg toog ñaan donc boobu lecture la président de la République def moo c'est ce qui a guidé sa sa sa décision bu ñu jógee ci loolu mm-hmm. du ñu jógee ci loolu le ministre de l'intérieur mm-hmm. ne peut pas faire autrement moo tax c'est dans cette logique là que le ministre de l'intérieur mhm. mu jël ma décision ni mhm. comme président de la république yomb na desserré na mhm. éto bi moom en tant que son ministre de l'intérieur buy buy surveiller tout ça au niveau du territoire il va suivre ses pas mais bu mu suivre pas bi mu xool au même moment cadence de contamination du yokk mais il va faw mu consulter waat les autorités sanitaires bu mu defee consultation bi ñu xool ni provenance cas yu ñu enregistré ci jamono yooyu balaa muy jël mat kii bi décision mhm. dafa gis ne li li gën a bëri mooy Thiès Mbour et puis yooyu yëpp mu xool statistique bi mu xam ne kenn lan warul ko lu dul moom en tant que ministre de l'intérieur moom moo doon joxe autorisation de circuler mu ne autorisation de circuler bi ma woon dinaa ko joxe pour que nit ñi dem julli ji dama koy dàkkal parce que li gën on il faut pas oublier que li gën a am solo wax nañ ko mooy le deux dañu war a jàngi bu ñu war a jàngi tamit bu dee loolu décision dañ koy mettre en pratique il faut que ñu maîtriser le taux de contamination bu bañ a nekk di monter rek et mu wàcc mm-hmm. boobu nag pour mu wàcc il faut que restriction bi au moins ñu revenir sur mm-hmm. man je salue vraiment cette décision là c'est courageuse mm-hmm. mais c'est une décision bu war a am parce que bu ñu deful loolu heure julli bi période julli bi dafa gàtt mais bu dee ñëpp nangu nañ ni éducation bi dañu war a jàng le deux man je pense que c'est une décision salutaire. léegi beneen question bi mooy changement stratégie ci jàngoro bi léegi nee nañ dañuy cohabiter ak virus bi ndax sénégalais dëkk ak virus bi loolu dina yomb. mais mais xam nga sénégalais yi d'abord waxoon naa la ci njëlbeen euh, li gën a am solo mooy que les gens ont accepté non je sais que du yomb mais le fait que nit ñi nangu nañ ne feebar bi am na. Mhm. c'est un c'est un c'est un moyen de sensibilisation. Mhm. plus effect eh, kii efficace donc foo boofu noonu man je dis que du yomb parce que c'est lié aussi euh, au niveau au taux de pauvreté suñu suñu dëkkuwaay et puis dëkkuwaay bi tamit boo xoolee Dakar waaw vous avez vu vous à Dakar présentement c'est le taux le plus élevé parce que c'est Dakar a la plus forte concentration humaine les boo xoolee le taux d'employabilité ak góorgóorlu yi ñi dem di dem mhm. di ki vivre le jour le jour mhm. boo ko xoolee di nga xam ne vraiment du yomb mais ce qui est c'est pas impossible de vivre avec le la la maladie okay. tout de discipline tout est question de discipline man je suis convaincu mhm. euh, les autorités religieuses bu dee vraiment euh, jël nañ dugal sensibiliser nañ nañu joxe ndigal man je sais que mhm. y a on a cette chance là mhm. am des des des des grandes confréries mhm. yoo xamante ne a beaucoup d'adhérents ki ki taalibe taalibe yooyu bu ñu leen waxee nii vraiment gouvernement def na effort joxe na ceeb donte ñëpp amul je sais que les collectivités locales les maires nañ ko compléter période bi c'est une période transitoire par président dafa wax ni on a au moins au minimum quatre mois pour on peut savoir un peu comment cerner loolu c'est possible question de discipline bu nit bu ku ne war a imposer sa bopp pour l'immunité collective collective pardon parole wax na ko l'immunité individuelle pour que au moins ñu aar askan wi ku nekk bu dee ku nekk jël ak ay conscience ni feebar bi am na man je ne dois pas être le vecteur de transmission bu dee loolu am na man je ne vois pas de mal pourquoi on ne peut pas vivre avec la le virus. loolu daf ñuy may rek li nga xam ne moo di euh, julli bi ñu tëjee parenthèse boobu mel na ni ren li sénégalais yi doon def di dëkk ak nit ñi di julli ñoom demandoo jumaa ja loolu du am mais dina nekk ci xolu sénégalais gis nañ sax euh, ki nga xam ni moom moo di Serigne Babacar Sy Mansour génnee na benn arrêté wala sax ci euh, ndigalu ki nga xam ni Serigne Abdou moom moo wax li ni mel ñoom neen dañuy tëj seen jumaa yi duñ julli. yow décision boobu sa commune ndax diisoo nga seeg imam yi. waaw ma mane ma ne. ama euh, la question tout question de responsabilité. président de la république. dafa jël responsabilité mm-hmm. xam na ni bu muy jël responsabilité am di ne euh, mun ngeen julli ñi muy waxal xam na ni ñooñu ay responsable la mm-hmm. yow boo xoolee sa entourage bi nga xam ne man de waxoon naa la ne ku nekk responsable bu ne dañ lay laaj ci sa responsabilité bu dee da xam ne yow sa sa sa sa sa sa bërëb ba fu nga fu nga nekk kilifa bu dee da def analyse man de su ma autorisé lii am peut-être du ma mun a cerner maanaam feebar bi war na la nga ne man damay tëju damay xaar ba ma am ci leer loolu war na la bu dee keneen ki gis na ni moom responsabilité am mun na gérer mun na wax ak ga taalibe yi jullit yi ñu dégg ko ci mesure boobu war na ko moom mu def ko mu def ko parce que yàlla du teg nit li mu li mu àttanul mm-hmm. loolu dafa leer loolu ñépp a comme ak gëm nañ ko surtout mm-hmm. jullit yi war nañ gëm loolu mm-hmm. moo tax man je dis que ku nekk ak dëgg-dëggam li nga dégg ci décision président de la république ak yow li nga attan ci ci responsa sa responsabilité noonu nga koy defal man je que bi affaire bu mu amee man su su ma nekkoon euh, par exemple euh, euh, kilifa bari ma nekk benn sëriñ man damay woo sama. est-ce que yow doo su dama bëggoon ne dama mu dee ba chef confrère yi. Ah, comme ñun lu ñu def mooy que dañu dañu woo imaam yi. dañu woo imam yi ñu woo chef de village yi les les acteurs chefs coutumiers ñu ne ah lii mooy décision président de la république doon nañ ci gis mais balaa ñu leen wax loolu man dañ leen di rappeler tamit par ñoom ñoo rappeler seen bopp. responsabilité bu képp ñëpp am ci sa communauté. nga xam ne yow tey boo jëlee décision di ubbi di ne dañuy julli da nga war a jël décision ku nekk kuy ñëw ci jàkka ji mu respecter les mesures barrières. boo ko deful lépp li ci nekk conséquence boobu d'abord ci religieux bi mhm. yow la et puis benn imam mhm. du nangu ni mu gàddu responsabilité boobu mhm. bu dee amul matuwaay bu mu war a jël sëkk balaa mu koy def ah. confiance boobu bu président de la république jël teg responsabilité ci ci ci ci les guides religieux la ak imam yi boobu confiance la au niveau local jël teg seen loxo ku nekk jouer sa partition man je dis que cette décision la il y pas meilleure décision que ça parce que on est conscient que feebar bi amaguñu feebar ji médicament bu koy faj et puis bi war na continuer balaa feebar bi amoon na yeneen feebar les gens ont ont accepté ils ont accepté de vivre avec la maladie dañu jël matu mais bu ñu nee fi sida sida sida les gens dañu jëloon seen matuwaay ils ont fait donte am nañu critique yi nit ñi def tout ça là mais ça n'a pas empêché lii tamit ay lii étape la rek dafay am benn diir incha allah balaa balaa médicament di am bu dul bu dee vaccin la bu dee comprimé la ñu ji war a jël mais balaa boobu dañu war a jël suñu matuwaay parce que au delà de la maladie ah situation bu gën a garaaw man man man man moom laa nekk di xalaat parce que si les gens bu dee nit ñi liggéeyuñu mhm. ñun on on fait partie les pays les pays pauvres bu ñu waree a ne lii restriction bi mhm. du ñu war a nit ñi du ñu liggéey mhm. secteur activité bi yëpp tëj fan la ñuy jëm après ah, bu ñu demee ñu ne am nañ vaccin mais après vaccin bi il faut que nit ñi dund donc c'est pour cela moi j'ai bien aimé la décision du président de la République responsabilité les gens c'est partagé quoi mais bien sûr c'est ça c'est extrêmement important. ok loolu daf ñuy may rek ñu jë aborder suñuy euh, question yu mujj juddugu xam nga yàkkamti nga ñu waxtaanee lay dëkk bi bu baax tey juddugu euh, tey lan nga ma mën a wax ci commune bi euh, ci li ni mel ndax jàpp nga ni commune bi acte trois bi ak yenn jafe-jafe yi naam mënta ñàkk tey lan mooy gën a urgence ci dëkk bi nga xam ni yaa ngi koy jiite. mais d'abord il faut ñu toujours ñu respect ñu ñu ñu ñu féliciter féliciter. et encourager les autorités. gis tubayul président de la république rek ba def na dara foofu. parce que du du question parce que nit. da nga da war a reconnaître. Mhm. bu dee am na ay man man man je me considère comme un un acteur du développement. waxoon naa ci je le développement communautaire. Mhm. Euh, ñun euh, comme toutes les autres communes rurales. Mhm. dañ njëkk nekkoon euh, communauté rurale. balaa ñu nekk commune. Euh, ce qu'il faut reconnaître parce que un pays d'abord il faut que nit ñi d'abord euh, euh, état bu mu xaalis bu muy bu muy jël ci kaw nit ñi il faut que bu mu koy redistribuer mu xam ni secteur yenn mu bañ a concentrer ci benn secteur foofu laa njëkk a remercier le président de la république parce que président de la république bu muy jëlee acte trois de la décentralisation dafa ne d'abord dama bëgg mu am ñaar ordre de collectivité territoriale ñaar ordre de collectivité territoriale mu war a rimer ak les pôles territoriaux mais aussi ñu bañ a lépp ci loxo gouvernement ci boobu nag dafa njëkk jouer agir sur le budget des communes parce que y a des communes rurales en son temps man mu ñu dalee ñëw ci commune bi buñ ma buñu quand on était bien on naa vu que suñu fond de dotation yi mm-hmm. ça tourne autour de cinq millions baruloon dara mm-hmm. président jamono bu ma ma lay wax ni y a des communes qui sont mm-hmm. ah ça c'est entre dix huit millions ba si kaw yokku na lu bëri donc ba pare mu yokk suñu mu mu xam mu ne il faut que ñu augmenter tamit seen compétence donc loolu loolu mooy le vrai la vraie la vraie bonne décision buy tax ne ma ne il faut ñu remercier ci loolu maintenant li nit ñi yaakaar ne ba bu ñu nee commune il doit résoudre tout en même temps man je dis c'est pas ça même le Sénégal a dans la décentralisation ça fait très longtemps tout n'a pas été fait en même temps on a assisté les communes rurales, les, les, les, quatre communes, la chose a bougé, bougé jusqu'à arriver à ce niveau. Okay. Donc ce qui, est, ce, qui est, manque, moi je d'abord, mm-hmm. il faut que l'État joue sur les infrastructures. Desna foofu. Desna du bëri. li may wax ci infrastructure mooy que une commune. Mm-hmm. dafa war a am infrastructure de base. muy poste de santé. Mm-hmm. muy école. muy marché ou bien ñu xool activités yi commune activité dominante de la commune ñu jàppale ñu si bu may wax loolu ñun Casamance sama commune dafa nekk une commune rurale à dominante arboricole foo xamante ne euh, plantation yi ñoo ci gën a bëri et puis la région de Sédhiou c'est la commune qui a euh, euh, qui a plus d'anacarde par excellence mooy kaju hmm? anacarde kaju hmm. ñun tey avec cette maladie là. Hmm. amuñu benn le prix a été vraiment le, le niveau le plus bas. dafa métti. moo taxit man j'avais même dit le président de la république. dafa war a jégleel ces acteurs yi nekk foofu parce que la population yi. Euh, avec le changement climatique. daanaka euh, seen béy bi demeewul noonu. avec la remontée de la langue saline. Man, je dis que le fonds force Covid-19, là, mm -hmm. il, devait, il devait soutenir ça. Mm C'est vrai, il, il n'y a que qui bien lancé euh, dans le cadre agricole. Mm -hmm. Il y a un fonds. Mhm. Mais man, je dis que le fonds là même, si nous avons un moratoire à ces populations la au moins pour ñu nous gagner mhm. Parce que de deux ans, nit ñi jël xaalis bi ñu liggéey xaalis bi mhm. ñu def leen moratoire de deux ans donc ñun suñu commune mhm. tey boo fa demee mhm. nous on a problème d'accès une commune très enclavée des pistes de production n'existent pas nous interpellons l'État parce qu'il y programme de PAPSEN bu bu bu def euh, benn benn étude waa mais waaw PPDC mooy mais PAPSEN bu nekk Sédhiou def na benn étude ba léegi ñun ba léegi dafa war a def suñu corniche piste piste de production les mangues les produits yi ñuy yàq si biir mun kenn mënu leen génne ci biti pour dem jaay mais accès à l'énergie l'énergie ñun la commune a fait beaucoup d'efforts mais ba léegi nu on sent pas d'abord on sent pas la Sénélec on veut, on veut les sentir oui on a la commune a fait des extensions par rapport aux petits moyens des fonds fonds d'investissement d'ailleurs man fu ma fu ma nekk nii maa nekk ci benn euh, extension euh, pour un village de deux kilomètres jusqu'à présent sama problème bi xam nga lan la c'est mënuma fexe ba am euh, la ligne MT ligne MT ligne moyenne tension ligne moyenne tension c'est xam nga c'est un peu lourd par rapport à les basses tensions mm-hmm. alors que ñun dañ doon def bu dee Senelec jàppale nañu mm-hmm. léegi léegi léegi man j'ai une petite enveloppe de quelques millions mm-hmm. bo xamante ne bu ñu amee MT mm-hmm. man la commune va financer pour la la ligne BT basse tension donc li gën a urgence foofu loolu li gën a urgence mooy loolu nag man ma j'ai fait appel au, directeur de la rek mm-hmm. mu jàppale la commune la commune la commune est en train d'investir dans un secteur où il ne gagne rien parce que c'est le service public ñun dañuy bëgg rek Euh, suñu population yi ñu am accès à l'électricité mm-hmm. mais ba léegi ba léegi dans tout le territoire communal mm-hmm. gisuñu benn benn benn bu Sénélec posé dans le cadre même de faire l'extension lool jafe-jafe bu gën a metti la mhm. et puis nous on nous a annoncé eh, dans le cadre de convention je ne sais quoi mhm. deux kilomètres cinq cent ba léegi mënuñu ko jot d'ailleurs j'ai fait appel au directeur directeur national ñàkkul déglu émission bi voilà voilà le directeur général de la de la de la de la mhm. pour mu jàppale la commune au fin que vraiment ñi population yi nekk la commune de judobo qui n'ont jamais eu, par le biais de la Sénélec, je pèse bien mes mots, c'est moi qui ai fait venir ou dans tout le périmètre communal, jusqu'au moment où nous sommes. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous avons un nous avons une enveloppe qui ne suffit pas. Il suffit qu'ils nous accompagnent pour que nous, nous, nous le fonds d'investissement. Mm -hmm. Au lieu de nous beaucoup dans secteur productif pour la commune, nous sommes dans le secteur de services. Parce dañuy def nécessité de service mm-hmm. dañu bëgg monsieur le directeur général de la rek mu jàppale ñu si loolu vraiment ça va nous permettre mm-hmm. à ces populations où il presque mille et trois mille habitants mm-hmm. ñu mën a accéder à l'énergie dégg nañ cri de cœur monsieur le maire bi léegi mbirum ndox bi nag xam naa mooy question bu ñuy aborder rek euh, mbirum ndox bi ndax yéen a ngi koy sentir foofu waaw ñu koy sentir ah ñu ngi koy sentir il euh, y a le PUDC qui doit partir dans tout le tout le périmètre a deux deux il moo fa am et puis c'est une commune rurale où les gens sont éparpillés donc euh, PUDC ya fan yële passé ñëwoon na xool pour un second forage mais ba léegi les travaux n'ont pas commencé euh, nous faisons appel toujours à l'État du Sénégal parce que euh, c'est vrai na métti na parce que on est dans la période de pandémie mhm. mais il y a des populations qui vivent des situations plus difficiles que la pandémie la pandémie euh, am na yenn communes yi ils n'ont pas alhamdulilah amaguñu cas mais ils sont dans une souffrance énorme cas boobu moo gën a métti sax que pandémie nga nga bëgg am ndox doo am ndox nga bëgg a charger sa portable wala avec la chaleur la ki sévit presque trente trent huit quarante degré munoo am euh, glace tout ça à l'heure la c'est difficile donc loolu vraiment c'est un appel il faut pas que vraiment pandémie bi fasse oublier mhm. les problèmes, euh, problèmes. le devoir régalien de l'État mhm. c'est l'accès mhm. pour au service de l'État ah. pour toutes les communautés Debout demande franchement ah. léegi ngir jeexal émission bi rek euh, mooy dernière question bu mujj bi monsieur le maire élection moom fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi te mënuñu jeexal ci émission bi te waxuñu ko xëy na ni ñàkkul am na ñoo xam ne bëgg nañ sa fauteuil bi euh, ci commune ba alors euh, li nga fi wax ni jota lim ni mel na ni boo doon bilan la kon euh, lan la ñuy jàpp un bilan mitigé wala à quatre-vingt-dix pour cent. bon man de je sais que j'ai pas fait le bilan mais mënoon naa ko def. et je sais <laughs> que jot nañ def dara quand même ah. population xam nañ mm-hmm. ñu nekk commune environnement environnement tamit xam nañ ko mhm. nañ fu ñu fekkee commune ba ak fu ñu ko yeb jëmale mhm. euh, li nga wax ni am na solo parce bien sûr bien sûr loolu du ñàkk li nga wax ni am na solo parce que la démocratie mhm. dafa am prix nekkuñu ci royaume euh, foo xamante ni kenn rek mooy benn famille mooy gérer euh, li tax démocratie am solo dafay lal ci ay échéance électorale Donc, euh, le Sénégal à la tradition des élections. Euh, je sais que euh, le président de la République, c'est un grand démocrate et tient au calendrier électoral. Euh, même si euh, aujourd'hui, Ken Hamoul, parce que Euh, les pays les plus avancés en démocratie jéem nañu def élection yi mhm. mais aujourd'hui la France mhm. euh, la cas se pose le le pose en France nit ñi di wax ni élection bu ñuy yi ñu defoon sax dañ koy reprendre mhm. dañuy joxe benn échéance en juin loolu yëpp wóorut ñu joxe janvier loolu yëpp wóorut parce que tout est incertain face à la pandémie parce que il faut que nit ñi comprendre qu'est-ce qu'une pandémie feebar buy lal en une grande majorité mhm. en un temps record photo yi nit ñi yi ñi nit ñi bëgg mhm. ni ñu bëggee photo yi yëpp mhm. il faut ñu nekk en bonne santé moo donc loolu tax na vraiment man je dis que période bi bon je sais que le président de la république manquerait pas de mu woo n'est-ce pas les acteurs politiques il l'a fait dans le passé et euh, dans le dialogue, le cadre du dialogue. Mm-hmm. Et euh, c'est parce que c'est la période de pandémie qui a désorienté toutes les décisions. Vous avez présenté mais moi, je, vais, je, je ne sais pas d'abord. Je ne sais pas d'abord, c'est mais Dieu sait, mais les je suis un acteur de développement. Mm-hmm. Tout ce que je peux je pense pouvoir faire pour ma collectivité, mm -hmm. je le ferai. Si ça demande à ce que je me représente, mm -hmm. je ne manquerai pas. Mm-hmm. Si je vois que je pouvais pas me présenter, je peux ne pas me présenter. monsieur le émission bi daanaka jeex na ju jox la kàddu gu mujj gi nga tàggatoo. merci j'ai même pas eu l'occasion de saluer au départ de mes propos. Mm-hmm. ben je remercie et félicite. Euh, Euh, Réwmi FM. parce que c' est la je crois c' la deuxième fois troisième fois. maay jaar foofu. Euh, seen émission gox bi c' est important. parce que euh, bu bu ñu leen laajtee sax y' des agents qui sont bu ñu leen laajtee fan la jur bi nekk xamuñu. mais au moins. dañuy gis ne euh, suñu action yi pour que vous êtes présent sur ce qui se passe da ngeen dem au fin fond euh, pour xam vraiment naka la mairie yi di di di di di di développer je pense que c'est à saluer et je vous encourage et félicite dans ça Euh, aussi saluer les les per le personnel sanitaire okay. le personnel sanitaire ah, voilà le personnel sanitaire mm-hmm. euh, je vous dis ma foi c'est difficile eh, mais je sais que gis nga ñun ñun xam nga ñeneen pop ñu wàll beneen wàll ci population ñu yëpp julli mais ñooñu mënuñu julli mënoo am cas ba pare nga ne da ngay dem julli donc loolu vraiment di wax ni vraiment il faut que gouvernement je sais que jël nañ seen euh, matuwaay pour renforcer la sécurité sanitaire je sais que mais lu ñu mënta def ci seen côté baax na Mais euh, je remercie, je félicite, euh, la population de Djoudoubou mm euh, dans la lancée de suivre mhm. vraiment euh, euh, les, les, les, les, le conseil édicté, mm -hmm. n'est-ce pas, par les autorités sanitaires, mhm. pour le respect mhm. le respect de la distanciation sociale c'est extrêmement important ñun ñëpp dañ ko war a suivre vraiment ñu ngi leen di euh, remercier di leen encourager ci loolu parce que au départ tout le monde a compris que feebar bi euh, am na Eh, te dañ ko war a dañ ko war a gëm tamit. et puis au delà dañu war a respecter la distanciation sociale. Mm-hmm. pour la pour la pour l'immunité collective. Mm-hmm. vraiment sur ça je vous remercie je j'encourage la la Rewmi FM. jërëjëf mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun tey si émission gox bi di leen ñaanal rek feetum jàmm di gërëm Adama jàll moom mi nekkoon ci xarale gi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité ci émission gox bi si rajo Rewmi FM.